بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على مولانا رسول الله وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن ختم الأولياء مولانا سيدي أبو العباس أحمد التجاني وعن وارث سرهما مولانا شيخ الإسلام وسعادة الأنام سيدي الحاج إبراهيم نصر يا همة الشيخ احضري لنا في هذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد mbokki soppe yi Cheikh Ahmed Dame maa ngi nuyu ñëpp di jox na yow bi Seyda Khadimu présidente Cheikh Saloum Dieng secrétaire su ma leen nuyoo rek nuyu naa waa kër gi yëpp zukuran wa inasan kibaran wa sigaara di nuyu suñ bàyyi Cheikh dégg nga ko macha allah باي فامراك شيخ ابو بكر نجاي نيب نيغي لين دي زياره ني بغا نيو اك يين سي سين درسو التينه بي ني سيخ اك يين وقتو ني موي جواهر الرسائل الحاوي بعد علوم وسيله الوسائل يومي ما توب مانغ سي 37 باج شيخ ابراهيم رضي الله عنه السادسة عشر من الوصايا ندين كان الفك اك جوروم بن gannaaw buñ jeexalee fukk ak juróom bi cheikh ibrahima mu ne bismillahi arrahmani arrahim bismillahi dana ma sof sama wax ci tudd turu buur arrahmaani biir bay buur bi yërëm julliti adduna yëpp biir bi xéewal mbindaa foo ne adduna yëpp arrahimi bi yërëm jullit daal ci àlaxira te moo alhamdu mboolem façon ngi lillahi sax la ñeel yàlla رب العالمين mi borom bi ndeefi arrahmaani rahim maliki yawmi diin mooy buurab bisu fay ba rahmaani rahim dama ko waxoon moo tax waxaatuma ko maliki yawmi diin mooy buuru bisu fay ba Cheikh Ibrahima bu nuyoo xee ngay bëgg a dégg nga war a lépp bëgg wax ci biir leetar bi ndigam terminé na maliki yawmi din leetar bi yëpp xam naa ne tawxid lay doon ak wax waa fan la war jaar ci yàlla ak yonantu ak Cheikh Tidiane radiyallahu anhu yalla yàlla may ñu dégg bàyyi ne wa salam julik sëlmal ala sayidina muhammadin yàlla nek ci sangu sunu muhammad wa ali ak waa muhammad حق قدره دغ دغ دايوم ومقداره اكمم العظيم بدا al azim ba استاذ برام دانا واخني حق قدر مقدار عظيم كن منو فيري رضي الله عنه azim اما بعد غناو بما radiallahu anhu جولي na amma محمد صلى الله عليه وسلم yàlla muhammad sallallahu lii leetar bii nga ne ko amu ne la fa ila axina fillah mi ngi jëm ci sunu mbokk ci yàlla dégg nga ko mi ngi jëm ci sunu mbokk ci yàlla parce que baay boo déggee mu ne la bët bi may xool doomu aadama baay lim gis mooy lépp lu yàlla defar rek mbokkam nga parce que moom yàllaa ko defar donte nag ni ko yàlla def def ko kenn waaw maanaam baay ni ko yàlla def def ko kenn waaye nag kumu do nit yalla la defar lolo tax kum ki rek ne la al akh fillah de nga kon mu fa ila akhina fillah sunu mbok mi ci yalla wa sahibuna tay sunu andandor yani sunu taalibe ndax ki ngay àndat da nga bëgg dara ci mom de nga kada aji dëggu ñee ko lol man bàyyi kum na mbëggeelam dafa deggu rek dama koy daldi ñe ndax man limu ma bëgg mooy mbëggeel gu deggu yalla na may ñuko ci cheikhul islam alaaji ibrahim الصادق المحبة كذا أجي دغ جيم بغيل في جانبنا تي سونو والا كيغا خامني داف نيو بغ اسكي كيغا خامني داف بغ باي بغ باي ندام لا دي تا دراجي جو ماغا ماغ لا سون باي مي شيخ ابراهيم نارا تودوسي باي مون صادق المحبة في جانبنا كو ام بغيل غو دغولا تي سونو والا الشاب الرابح ndaw li nga xamne ndawlu tonola ndaw lo xamne lu bénéfice la maana ndaw lu am lim doon ul rek wal waliyu salih waliyu bu bax bi wala alimun nasih borom xam-xam bu hewen bi xaydul a'da ki nga xamne meram noni la bu ko noni gisee rek seen xol bi dafay naqadi moy la suñ mbokk ma waxon suñ mbokk ma bokkuñ kër ak mom du talibé baye waye xamna motax mu wax neena mom lim gis moy baye ñu ku ko bañ waxtu woné sa xol bi dafay gën a naqadi ndax sa yu xey rek da nga gis mbiram di gëna a di gëna a forta mëno ci dara Cheikh ibrahim ne woo masarratul ahba ahib ahib ahibai ta moy mbektel soppe yi waji ji mën a tudd mooy mbégteel soppe yi ko kan la mu ne Muhammad al Hasan Jatara ki nga dégg ñi ko daan wax bay Jatara محمد ابن الحسن جتارا محمد جتارا بين عصمه الله يلنا هار yàlla na wa satarawu te mu leetar bi ci moom la jëm ma ne la Cheikh Ibrahima nag bu bindee kenn boo amee bopp jàppeel kenn kooku sa bopp bu bindee benn dëkk boo xamee bopp jàppal na dëkk booba sa dëkk bu bindee benn kër jàppal ne kër googu sa kër la bàyyi na wa ilaa kaafatil ixwaani leetar bi alaaji Xasan Jatar alaaji Mouhamed Xasan Jatar laa ko bind waaye nag mi ngi jëm ci mboolem bokk yi xaysuma kaanu fuñ fi mën a ne kon ne leen ma la bayka Cheikh Ibrahima mi ngi leen di oo yéen ñëpp pour ngeen ubbi seen nopp yi teewal seen xol yeeg seen xel yi pour déglu Cheikh Ibrahima lan lay wax bàyyi ne asalaamualeykum asalaamu jàmm aleykum yàlla nekk ci yéen wa rahmatullahi ak yërmande yàlla taala bu kawe mu barakaatuhu ak yiwam mu bari dégg nga ko yaani barkeem ak barkeem Cheikh Ibrahima mu ne an madadi mawlaana alxatmi tijaani مونجي تبي تتبم مولانا شيخ تجان ميكاس ولاية المحمدية الكبرى رضي الله عنه وارضى إلا يالا جرم كنت جرم لوك آمين وعنا أجن بي شمم آمين باين لقد وصلني اكسنا شمان أيها المحب يوصف بي كتابك الكريم سلاتر بتد بي قمغا لاتر مبوت فچينه شيخ إبراهيم السيدي علي دانا نك نيغم كرم كنا قمنا نباي su nekkee néegam léegoo lu bëri bu soxlaan Seydi Ali dafa naan Moussa gaana wala ñu nekk ci buntu bi kenn demal nga ool ma Seydi Ali waaye léegoo léegi daf daan bind leetar yónnee Seydi Ali radiyallahu taala anhu dégg nga kon cheikhul islam Alaaji Ibrahima maanaam li nekk ci mbóot ci leetar moo tax mu bind ay bëri ay leetar yoo xam ne dégg nga ko mu koy bind Cheikh Ibrahima na man egsi na ci man sa leetar bu tedd bu fahimtu te comprendre naa maanaam fahimtu du doon dégg naa kese waaye dégg naa dégg dégg maanaam comprendre naa kii moom teel gaa ñi dégg nag dëgg-dëgg boo waxee moom war naa mën a dégg moo tax it dégg na bàyyi ne wa fahimtu xitaabuka salim sa wax ju mucc ji maanaam sa discours bi nga xam ne bu mucc la ci sikk ci ayib ci ayib ak yu mel noonu bàyyi ne ko comprendre naa ko bu baax wa asalullaha maa ngi ñaan yàlla tabaaraka bëri na xiw ta taala takawe an yufida mu bëbbal naa fi ñun wa aleykum ak yéen buhuura ulumihi géeji xam-xamam yi ndigam bàyyi ne na wa ilaa kaafatil ahbaab yi ñun tam ci lañ bokk xam-xam rek lañ bëgg soo àndut ak bëgg bàyyi bëgguñ dégg nga ko kon buhuurul ulumi cheikh ibrahima radiallahu anhu géeji xam-xam yi géeji fànni xam-xam yi ah géeji fànni xam-xam yooyu li ci laxasu dafa bari kon nañ wax amin ñun ñëpp rek wa maarifihi ak xàmmee ko te mooy xam yàlla wa aadaabihi ak géeji teggiin yi wa arzaqihi ak géeji wërsëg yi soxla nañ ko lool alxissiyaati yee ko jug yëg wal maanawiyaati ak yee ko jug maana yee jug xàndaale bi jaay majmaa shuuni ci dara jaay aji dajale yëf yi ki nga xam ne yëf yëpp ci moom la dajaloo mbir yëpp ku kan la bàyyi na alxijaabul azam ku koy kiiraay lu nga ko moom dong moo nekk ci diggante yàlla ku mën a doon te mooy caabi ja dégg ko te mooy yëf yee sax moom dong nag ndeysaan mooy diggante yàlla ku mën a dox moo tax mooy hijaabul azam moo tax Cheikh Ibrahima radiallahu anhu bam ne réer naa ci xàllab yàlla daliltu bihi yowman wa yowman wa thalithan lum ci teg wa maa huwa illa wa nabiyu bina man sama réer gi yonentu moo may bàgganteloo yonentu rek moo may xam nga keroog nettali naa ko Richard Toll Cheikh Ibrahima bëggee dem ci barab te dëgg bëggut nga dem doo dem mag ñi dañu bàyyi bi leen bàyyee balee Richard Toll ñu dem fa di bay di di liggéey tool ba di liggéey ba benn bis benn guddi benn dëkk bu nekk ci ginnaaw Richard Toll ñu ne dañ fa bëgg a dem daayira sama maam bi ma ko nettali nee ma yoon wi ñu jàpp di dox yaakaar ne ñun génn nañu Richard Toll lu yàgg guddi gi mënuñoo fexe ba yàgg dox nañ ba bët set ndekete benn digg rek lañ nekk di wër benn digg ma ne ko bàyyee bëggut ngeen dem radiyallahu anhu dégg nga noonu la mbiri Cheikh Ibrahima demee parce que moom mooy borom ndigal li moo tax ba yonentu bi bàyyi ne mooy xijaabul aazam huwa baabullahi ay yumri in waafahu min gayrihi laa yadxulu mooy buntab yàlla bi ku ñëwee yàlla ci kurut moom doo dugg na xam loolu bàyyi nag nee na moom mooy buntab yonentu bi sallallahu alayhi wasallam te mbir yi noonu la demee de ku ñëwee yonentu bi ci kurut cheikhul islam alaaji ibrahima doo gis fi yonentu nekk sax radiyallahu anhu mu ne kon nag alhijaabul aazam kiiraay lu màgg li sallallahu alayhi wasallam wa baad bàyyi gannaaw buma julle ci yonantu bi bak sama serigne Cheikh Tidiane radiyallahu anhu wax fi leetar bi jëm luy leetar bi mu ngi ni bàyyi fa inni man usikum maa ngi leen di dénk wa usi nafsi ta maa ngi dénk sama bop bi ma wasallahu bil umam ca la yàlla denkon xedwa digam may lam ñu yàlla ci minde fi nak tay may représentant wu bi sallallahu alayhi wasallam ak Cheikh Tidiane radiyallahu anhu may wax ci sen làmmañ motax maa ngi leen di dénk la yàlla dénkoon xeet wi wa iyaana ak ñun fi kitaabil aziz ci téeréem boobu nga xam ne moo not mboolem téere yi alladi téere boobu nga xam ne laa yaatihil baatilu caaxaan du ko dikkal neen du ko dikkal mukk min bayni yaday ci kanamam wala min xalfi du caageen ci ginnaawam téere bi ci kanamam yaani li ko jiitu ci ay xibaar ci ginnaawam gannaaw bu mu dikkee parce que téere bi naba'u man qablakum wa xabaru ma baadakum xibaaru ñi nga xam ne ñoo leen ñoo leen ñooy ñëw ci seen kanam maanaam ak histoire yi ñi nga xam ne ñoom ñoo wéen yépp téere bi daf koy indi muy alquran wala min xalfi qaala jalla wa ala qaala wax na jalla màgg na wa ala te kawe wa laqad wasaynaa dénkoon nañ alladina ñaaña uutul kitaaba joxoon nañ leen téere min qablikum ci seen ak njëkk wa iyaakum ak yéen ñooñee ñu ne ko yàlla lan nga ñu dénk mu ne an e ittaqullah ragal leen yàlla téere bi loolu la wax bàyyi ñu sit loolu la nar a wax si loolu sóoratu nisaa yi la ma ne ndigam bàyyi nee na li yàlla dénkoon xeet u moom la ñëw pour dénk leen ko ma ne loolu sóoratu nisaa yi la aaya one hundred and thirty one cent trente et mu ne waqaala waxaa na ne sharaa dogal na la ñee leen mi ne diini ci diina dégg nga maa lépp loo xam ne wasa dénkoon na ko bii ci moom nuux nuux lépp lu yàlla dénkoon yontu yàlla nuux rek dénk na ko xeet wi pour ñu jëfandikoo ko soo xoolee yàlla dénkoon yontu yàlla nuuxoon nag ah bokkut ak li waa ji doon wax de nga xamee ne imam bii jiite inna arsalna nuuxan mënta jàll inna arsalna nuuxan ba sonn mënta jàll waa ji xam na li muy wax ci arab waaye xamul nu mu koy tekki nu mu koy continuer mu ne ko bu nuux bañee nañ yónni keneen ah inna arsalnaa nuuhan ilaa qawmi yónnu nañ noox ci aw nitam yónnu nañ noox ci aw nitam yaa ngi koy répété di ko répété di ko répété rek su nuuhun bañee nañ yónni keneen mu jeex dégg nga yàlla nag lañ dénkoon nuux moom la loolu taxul ko faa jog loolu suratu shura la aya treize te treize mooy cheikh ibrahima radiallahu anhu kon suratu nuux boo fa demee da gis baay yàlla yàlla may dégg dégg nga day ma ne suratu nuux noonu la demee mu ne ilaa qawli ba ca waxam ne an e eh, aqimu diina taxawal leen diine ji taxawal leen diine ji nag moy def len li ci war lepp lu war ci diine jëna ko def wala nga toxlu fenen wala tatafarraqu ta bu len takaliko fi ci diine de nga ko tatafarraqu takaliko ak ikhtilaf bokut xam nga ikhtilaf yonentu wax na ikhtilaf ulama u ummati rahmatun Utek sama ñoon sama borom xam-xami xet wi yermande la way Utek gog bokut ak utek gi ñun gi nga xamne mom lañ nekk di gis tay de outé eh, gi am outé wu borom xam-xam outé fi la far rek la uteeg par parlo lol dong la wa ta te Baye Niass nee ñun xamuñ par parlo ci diine ñun lañ xam moy par parlo ci rew man nationalité sangam la waye man diine sangam la bok déedéet diine ben la di Cheikh Ibrahim ne wa haqiqatu zalik deug deug loolu nak boma ma bëggee anta kunu takunu ngeen nek rek mustaghriqil bawatin de labal batini wala di way lab ci batini billahi ci yàlla ngeen jël baatin yëpp labal ko ci yàlla wa azamatihi ak màggaay yàlla gi wa jalaalihi ak màggaayam gi ba wa jamaalihi ak taaraayu taaru yàlla bi dégg nga ko baatinu yàlla bi labal leen ko fa màggaayam gi jalaalam gi ak jamaalam ba labal leen ko fa <laughs> lii de ndeysaan euh, lii mooy la alaaji ma abdu waxoon bi muy laaj ba abda rasul am waliin annabiyun amum wa sirru laa ilaaha illaa bal huwa madharu zaatihi dégg nga ko wa sifaatihi wa jalaalihi lillahi ma asfa dégg nga kon azamatullahi ak jalaalullahi ak jamaalullah yooyu yëpp mën nga koo firil sa bopp léegi nag baatin yëpp dégg nga baatin yàlla yëpp ci noonu nga leen lebale waaye wa mustaxriq zawahiri ta nga labal zahiri bi awamiri yi ci ay mbiram mbiré mi moy lan yow sax ci mbir yàlla yi nga bokku di yow sax ci mbir yàlla yi nga bokku mbir yàlla yi mbole melo yi ak tour yi ci mbir yàlla la ndax xoolal présentation yàlla xoolal presenter bismillah ma ngi tambalé sama wax ci turu yàlla ñu ne ko parce que wax nga ñu tur yi mooy allah léegi yàlla mom moy kan mu commencé melal rahmaani mooy rahmaan arrahimi mooy rahim malik mooy malik malik lu moom mu ne yow mi diini dégg nga ko commencé egg présenté borom bi subhanahu wa taala dégg nga kon wa mustaxriq zawahiri bi awamirihi kon yàlla ndigam bawatin yi ci yee lañ koy labal zawahir yi ñu labal ko ci ay awamiram ala lahul xalq wal amru kon bu njëkk bi azamatullah jalaalullah jamaalullah yëpp mën ngaa wax ne xalqu la waaye boo ñëwee ci zawahiru zawahir yi yëpp su boba da ngay wax ne mbirum amru la motax yàlla bayne la yakun du nek lil abdi ñeel ben jam hazun ben cieur fi siwa ma amara allah ci ludut la yàlla digle bi ci moom ganiyan mu da aji doylu nak bi mawlaawu ci boromam an taati wali stop ko ma shiddati al ijtihad andak tata gor gorlu ca loola fa dalikum seen lii ma leen wax nii dégg nga ko wala déggoo ko assiraatul mustaqim mooy yoon wu juwa qaala wax cheikh Mouhamadul Busayri boo demee ci téere ba nag Basri la def waaye Busayri la ci jublu rek dégg nga wax na yam daxu di tagg cheikhahu sëriñam kan la abal abbas il mursi radiallahu anhuma cheikh abul abbas il mursi la doon tagg lan la wax dafa ne se sama sëriñ abul abbas il mursi nga ne ko ah mu ne xat naa la jot na raayatama dayob lépp loo xam yarumu dana hot dana hut al muntahi aji plafonné aji daytalu ji aji egg ji min rabbi ci boromam wala hu te ñeel na ko moom ta sëriñ bi ijtihaadul mubtadi góorgóorlu kuy door di door góorgóorlu aji tàmbali ku dem ba nga xam ne lépp lu yàlla di maye jot nga ci boo ne yàlla mayel kii sax mu may ko yow ngay mel ni kuy door di door loolu lu ci Cheikh Ibrahima jublu mooy buñ gaaw a doyal bàyyi ne wala budda du jaas nag du mën a ñàkk lil abdi ñeel jaam bi isa araada bu nammee an yakuna mu nekk min abdil min abidil xadarati ci jaami pay ba xaqiqatan ca dëgg zahiran jaamu batinan ak jaamu batin ah dégg nga fi ci àdduna wal axirate laal axira balle am kay abadal abadi dappetu dappet yi mu nekk jaamu pay ba toujours rek du mën a ñàkk nag moom taalibe boobu moom jaam boobu an yenta bi mu yeew wa takunu nekk lawu ñëwal ko awraadun ay dog yu lazimuha yoo xam ne dana ko taqoo way axuduha mu jël ko jàpp ko bil izni saxihi ci ndigal lu wér min al machaixi al kumal ci sëriñ su mat si yaqra'uha boo xam ne dana ko nekk di jàng bët bu set imtisaalan li amrillahi ngir roy ndigal yàlla ndax lan qaala taala la mu kawem wax na ne fazkuru ni tudd leen ma azkurkum ma tudd leen baqara la aya 152 aya 152 مني وقال تعالى يعلم كم وحنا في الحديث القدسي تحديث القدسي نه أنا جليس من من مانجي توغال كيب كو قمنا ذكرني مومي تدو دعو كلورك جارنا تدو الله سبحانه ويكون تنا نكلو نيال كو شيخ سرين كامل بمت سك يسحبه بقمنا دنا عندك مم لله غري الله وحده مم كس لا لغير يدود لنن آه شيخ إبراهيم رضي الله عنه كيب كو عندك سرين لدود يا من خرج dégg ko yow do taalibe momi du sëriñ ah, mom ma nga andat du sëriñ dégg ko handal ak mom ngir yalla bu land ak mom ngir lenen ijmauhu ko xam dana ko dajaleeg allah ci yalla dana ko génnee mom sëriñ ba min ru'unati nafsi ci gak gak bakkanam yi nga xam ne koy dem ci yalla diko ko mer dégg ko di sip nit ñi di len bañ dégg ko di nek ci wërta ne ah waawaahu ak banexi bakkanam wala budda du mën ñak min al adabi ci teggin ma cheikh ànd ak serigne bi wa maa ixwaani ak mbokki serigne bi fi cheikh yi ci serigne bi wa maa ammatil muminina ak mbollem julit ñi wa xaasatim ak ni xaas ci julit ñi moy ñam digal nga xamne ne ma sa'ir saairi xalqillah ak binde fi yàlla ya ala qadr maratibi ci kembu sen martaba ya kenn ku nek le waxon al alxaaji ma abdu ne ko anzilu naasa manazilahum wàcceel gaañi seen wàcc fek fekk dafa am ñum doon ebal ci mom dafa am ño xamne Cheikh Ibrahima daf leena ebalon ci alaaj mabd bind leetar alaaj mabd nag ne ko gaañoo ñu di ñëw xol leen bu baax ku ci aajoo ñaanal kesse ñaanal ko ku ci aajoo jox wirde jox ko wirde ku ci aajoo tarbiya ku ci aajoo tarqiya ku ci aajoo jàngal de nga ko ci lako waxon ne xol leen ci sa beuti xol yi pour nga mën xam kenn ku nek foo wàcce de nga wala dego cheikhul islam maulana haaji ibrahima Niass radiyallahu anhu ne nga am teggine ci sëriñ bi am teggine ci mboolem mbokk yi nga bokk ak ci sëriñ bi am teggine ci mboolem julit ni ci ñi nga xamna ñoo am ci julit ni ak mboolem bindé fi yalla yi rek kenn ku nekk ci kem martabam li de képp ku ko man ah oo xam do joom de de joom té du la yom bayina wala budda du mëna ñak nak min mujaadatu nafsi gaday bakkan wala hawa ak banexi bakkani wa shaytan ak cheytaane yépp fa nga gaday lé ndax buma fatali ko ben téré buñu wax mukashifatul qulub imaamul xazaali mu ngi fa nettali benn hatim al asam muy wax ne innibtulitu bi arbain ma sulitu illa li shiddati shaqwati wa ana'i iblisu wa dunya wa nafsi wala hawa kayfa khalas wa kullum aadaa'i man buñ ma nattoo ci ñent duma ci mëna jëlé lu de nga ciono bu métti ak texaadi ñu ne ko kan la mu ne iblis ak aduna bakkan bi ak ay banexam dégg nga yooyu rek laa ci mën a jëlee moo tax nag saan foog nga gàddaay bakkan bi ak ay bànneexam ak seytaane nga ne ko léegi man ndigam xaw ma nu ma koy doxalee yow laay laaj nan laa koy doxalee bàyyi mu ne mu wa mujaadatul murid gàddaayu taalibe bi nag jihaatam ak bakkan boobu sabruhu moy muñ goo xam ne dana ko muñ alal waajibaati ci ko war ci way war yi xataa yu addiha ba mu jox ko kama yambari comme ni mu xelle muñ gi muñ ba def li la war donte dafa metti coono yaa ngi bari waaye lii war la nga muñ ba def ko ah loolu ci jihaad bakkan bi ci la bokk wa sabruhu ak muñ alal maniyaati ci yiñ tere xataa saniba ba mu teet ko looloo dégg tax nga dégg ñaan googu ñuy ñaan bokk ci ñaani yonantu allahuma arzuquna eh, eh, rabbana arina alxaqa xaqan warzuquna tibaa waa arina al batila batilan warzuqna ijtinaba mu bokkoon ci ñaani yonentu sallallahu alayhi wa sallam ne yàlla wan ñu dëgg nga wërsëgal ñu topp ko wan ñu ay caaxaan dégg nga ko dimbale ñu bañ man koo teet yaa ngi dégg kon nag loolu mooy jiyaat ak taalibe bi wa sabruhu ak tam muñam ala mararati majaaril aqdaari dégg nga ko ci naqarik wexu ni dégg nga ko doxinu dogal yi maanaam dogal yi charri yi aw xayri comme nam la ko waxee woon dogal yi maanaam ni muy doxee naqadina yooyu yëpp nga mën koo muñ xata yastaslima ba muy jébbalu lillaahi ñaal yàlla dégg nga ko am sàkkoo jébbalul yàlla way sallimal amra ilayhi mu jël mbir yëpp jébbal ko borom bi subhanahu wa taala wa yufawidu mu wéer mbir yi ci yàlla werda te muy gërëm ni mbir yi di doxee dégg nga ko yooyu yëpp Euh, mu ne walaa budda du mën a ñàkk min muhaasabati nafsi ngay kisi kisi bakkan bi ndax loolu kat xadis la yonentu boo ne xaasibu anfusakum qabla an tuxaasabu dee leen kisi kisi seen bopp bala leen a kisi kisi xisaab mbugal rek doy du xisaab doy na ci bàyyee ko waxoon radiallahu anhu kon wala budda min muhaasabati nafsi aydan bàyyi na fa bi haasayni ci ñaar yi ma lay wax ya sixu lay waree alwarau sàmm wu soo bëggee sàmm wu dëgg yii ma la wax ni da ko def dégg nga ko ko def de waaw kisi kisi sa bakkan bi ak muñ su ko defee foofu la ñuy emale darsu bi pour buñ ñëwaatee dalee ci wax yonentu yàlla muhammad ji sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaan yàlla nag may ñu dégg topp lu ci leer baay mi waxee ci làmmañ yi la jiitu ci nopp yi lu ci lëndëm ngan kam ne ñu ci doon jéem a jottali rek la in uridu illa al islaaha ma stataatu ma tawfiqi illa billah سين بوكو احمد دام نيغلي سينا غامبيا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته